rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ataamaani aklamaani ala sayyidil xalqi ajmain ala alihi wa sahaabatihi ajmain amma baad salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ñëw tey ci suñu émission bu am solo bi bu ñu tuddee kunuuzu saalik te mooy trésor ki nga xam ne mooy tukkikat bi ngeen ngeen nar cee ànd ak seen mbokk Issa Samb kunuusu saalik nag boo ko déggee mooy trésor ki nga xam ne day tukki kuy tukki jëm fan mooy kuy tukki dem ci suñu borom tabaraka wa taala ndax suñu borom tabaraka wa ba muy wax ci alquran ba muy tudd lu jëm ci wàllum wërsëg dafa ne fam suuf yi manaaki biha dox leen ci kaw suuf si ngeen dem ñu jëli wërsëg yi waaye ba muy tudd tamit ci jëm ci wàllum aljanna ak taar-taaru àjjana dafa wax ne wa saabiquuna saabiquun ulaayika almuxarrabuun naka noonu tamit day wax ni wa fi dalika falyatanaafasil mutanaafisuun ci lii la njëkkantekat yi di ci di njëkkante faste bihul xayraat loolu tam ma koy wax jëkkante leen ci lu ci wiiw yi mooy waaxu leen ngeen jëkkante ci yu yiw yi waaye nag ba mu demee booy wax lu aju ci jëm ci moom dafa wax fa fiiru ilallah daw leen xëlu leen jëm ci suñu boroom tabaraka wa wa taala moo tax nit ku nekk war a ci yoonu suñu boroom tabaraka wa taala ngir delluwaat ci suñu boroom balaa dellu bu mag bi te mooy génn àdduna di ñëw di ko yóbbu balaa ngay dee na fekk nga dee jëm ci su dem suñu borom tabaaraka wa taala moo tax yoon boobu mu am ay trésor yoo xam ne ne ñoo nekk ci yoon bi te ki nga xam ne moom mooy kiy sóobu ci yoon boobu soxla trésor yooyu ngir mu ko jëfandikoo ngir yoonam mën a rafet ngir yoonam tamit mu bañ cee am benn coono waaye itam fi nga xam ne ne moom la moom la bëgg dem mun faa yegg naka noonu tamit mu bañ a réer ndax bari na koo xam ne mu ngi soobu ci benn yoon wala jëm ci benn yoon bu amul orientation bu ci war du ma ne dina ko du ko gis mais mën na ay gaar-gaar yu bari mën na ko dal ci yoonam lu ci mel ne réer lu ci mel ne dugg foo xam ne ne foofu bërëb la boo xam ne ne ku fa dugg rek da ngay alku ndaxte am na ay mbir yoo xam ne ne day day gàllankoore donc nit ki nga xam ne moom moo am giddam maanaam loo xam ne moo koy orienté su nekkee ci yoon boobu noonu dina ko mën a permettre mu xam ne ne yoon bii waru faa aw parce que yoon bii jëmul ci dëkk bi nga xam ne moom la jëm naka noonu tamit yoon bii da ko war a éviter parce que dafa am soit ay agresseur wala mu am ay euh, jaay àll yoo xam ne ne dañ ko ci faagaagal nga xam ne ciy jaaree génn àdduna ak yu demee noonu noonu nag la demee ci yoonu yàlla yoonu yàlla da soxla orientation wu boroom xam-xam yi hmm? foo nga yittewoo ko foo nga bàyyi ko xel ngir mën a yegg fi nga xam ne ne mooy ci suñu boroom tabaraka wa taala loolu moo tax ñu créer émission bi di ci waxtaanee lu aju ci loolu tey nag incha allah thème mi nga xam ne moom la ñuy njëkk tàmbale moom mooy ak taw tawba mooy tuub la moo tax ñu war ko njëkk tàmbalee ndax te ci yoonu yàlla dañuy wooyee dañuy wooyee li nga xam ne mooy épuration wala mooy tajrid mooy dépouillement mooy summeeku ci ñi nga xam ne ne moom nga moom nga nekkoon te loolu rek day tax taxaw taxawaayu tuub kon kuy soogu ci yoonu yàlla dafa am mbir yoo xam ne ne déjà moom nga cosaanoo woon moom nga tàmmoon moo nekkoon sa aada ci yoo xam ne ne yooyu yëpp day dox sa diggante ak sa borom tabaraka wa ay kiiraay la yoo xam ne ne day dox sa diggante ak sa borom donc yooyu foo nga foo mu dañ ci yow foo nga tuub ci yooyu bu fekkee bàkkaar yi nga xam ne ne moom mooy yi nga xam ne moom mooy yu gën a siw yu kaba mooy kabaa'ir yi yu ci mel ni sàcc fen ak yu demee noonu njaaloo et cetera naan sàngara yooyu foofu nga denc ngir sa yoonu yàlla mën a jakk ndaxa noonu tamit ngir nga mën a sóobu ci yoonu yàlla tamit foofu nga soxla yenn jikko yi nga xam ne baaxul te mu nekk ci yow foofu nga fexe ba mu deñ ci yow nga dindi ko ci yow nay iñaan soxor yu demee noonu yëpp foofu nga fexe ba yooyu noonu yëpp euh, gis sa bopp gistal déggtal ak yu demee noonu foo nga fexe ba yooyu mu deñ sa ci sa bopp denc ci sa denc ci sa xol solo yoonu yàlla la dooga mën a jag nga doog mën a départ donc nit ki pour mu départ foo mu tàmbalee ci delluwaat ci yàlla te delluwaat ci yàlla boobu noonu mooy lan moom mooy tuub moom la ñuy wooyee tuub taaba dellu na mooy taaba tuub na mooy dellu na donc da ngay delluwaat ci suñu borom tabaraka wa taala après dinañ ñëw ci charte yi euh, kon loolu moom mooy thème bi incha allah li ñu nar a doxalee thème bi incha allah mooy dañuy def benn muxaddima bu ndaw benn introduction bu ndaw ñu daal di wax ci ngëneelu tamit tuub daal di wax tamit ci charte yi nga xam ne ne mooy tax tuub ñu koy nangu buñ ñëwee ci introduction bi da ngay xam ne ne suñu boroom tabaaraka wa taala ci ay aayaat yu bari ci alxuraanul karim da ci tudd di ci xirtal nit ñi ngir ñu tuub di delluwaat ci ci moom lu ci mel ni aaya bi nekk ci suratul nuur te may wa tuubu ilallahi jamian ayyuhal muminuuna laallakum tuflixuun mu ne yéen ñi gëm te dëggu ci seen gëm tuub leen delluwaat leen ci suñu borom tabaaraka wa taala yéen ñëpp ngir lan lan la tub boobu di jëriñ te bokk na ci ngëneel mu may la allakum tuflihun ndax ngeen texe kon lii tax nit ki tamit di texe moom mooy dellu ci suñu borom tabaraka wa taala chaque instant waaye naka noonu tamit la moo tax may wax chaque instant ndaxte yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ci xadis boo xam ne jëlee nañ ko ci seydna abu hurayra radiallahu taala anhu أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة te xadis la boo xam ne la jëlee nañ ko ci imam Buxaari Seydina Abu Hurayra radiallahu anhu mu ne dégg na ci yonente bi alayhi salaatu mu wax ne ne maa ngi wat ci yàlla ne dina delluwaat ma dina tuub def ay istixfaar ci suñu borom tabaaraka wa taala di ko sàkkoo njéggalu di delluwaat ci moom ci bis bi lu ëpp soixante soixante dix soixante dix fois te soixante dix fois comme borom xam-xam yi rahmatullah alayhim li ñu ciy wax ne dafa wax soixante dix rek ndax ci arab nit mun na wax soixante dix waaye da ci jublu rek ne da koy def lu bëri mooy mel ma ne la wax naa la ba wax naa la. téeméeri yoon bul def nangam peut-être li ma wax li ma la ko wax matul téeméeri yoon mais lu ma ci jublu rek moom mooy lu gën lu maam lu bëri lu bëri yoon kon mën na ko sax ëpp te loolu lu koy wane mooy beneen xadis bi nga xam ne ne waxul 70 fois waaye dafa wax ne dina ko def cent fois ci ci bis bi ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak daraja bi ko yàlla may moom ci boppam weesuwul di tuub di istixfaar di delluwaat ci suñu borom tabaraka wa taala maam di sàkkoo jéggalu suñu borom tabaraka wa taala te bien sûr comme borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñu ko waxee ne moom jéggalam jaamu yàlla la bokkut ak ñun suñuy jéggalu ndax ñoom seen jéggalu du nekk rek jéggalu ngir bàkkaar waaye day nekk jéggalu ngir jaamu yàlla day nekk tamit jéggalu ngir gën a jege suñu borom tabaraka wa taala rien que pour dire que ne kon jamian boobu noonu bu ñu wax sànq ci aaya alquran bi kenn génnu ci du yenent yi du jullit yi du kenn koo xam ne ne mucc nga ci lool amul benn mi def boo xam ne ne mucc nga ci delluwaat ci suñu borom di sàkkoo njëgal ci suñu borom tabaraka wa wa taala waaye tamit suñu borom tabaraka wa taala lu ci mel ni ci suratul Hud bi wax ne istaghfiru rabbakum summa tuubu ilayhi na ngeen sàkkoo njëggalu seen boroom tabaaraka wa taala topp ci loolu nag ngeen daal di delluwaat ci moom kon lool xadis bi walla euh, aaya alquran bi da fekk suñu boroom tabaaraka wa taala boole istixfaar ak tamit taw ba loolu day wane ne istixfaar ak taw ba bokkuñ euh, moom mooy sàkkoo njéggalu ak delluwaat ci suñu boroom tabaaraka wa taala ñaar yooyu bokkuñ ndaxte indi leen leen ci benn aaya donc loolu day wane ne bokk ñoom ñaar seen sens bokkul lan mooy seen différence <coughs> maa ngi jégalu len lan mooy seen différence seen différence moom mooy ne istixfaar moom mooy da ngay sàkkoo jéggalu mooy astaxfirullah bi ngay wax yàlla maa ngi sàkku ci yow nga jéggal ma waaye tuub nag moom mooy nga dellu lool ci xol la istixfaar moom nga wax ne ci làmbin la waaye tuub nag fi muy gën a feeñee moom mooy ci xol mooy regret bi nga xam nit ki moom lay regretter benn acte te fas yéene delluwaat ci denc ak acte boobu la xam ne da ko doon da ko doon def ci digganteem ak boroomam reconnaître na tooñ na fautif na te bëggul lu dul delluwaat ci suñu borom tabaaraka wa taala ngir mu ngir mu jéggal ko te loolu dinañ ko gën a leeral bu ñu ci charte yi waaye tamit suñu borom tabaaraka wa taala di wax ne yaa ayuha allazina amanu tuubu ila llahi tawbatan nasuha nekk suratul tahrim mu ne yéen ñi gëm te dëggu ci seen gëm tuub leen dellu ci suñu boroom tabaaraka wa taala tuub bu sell tuub boo xam ne tuub bu ñu bu ñu nangu la donc loolu nga gis ne ne la fekk suñu borom tabaaraka wa taala chaque fois di insister ci tuub boobu di wax ci nit ñi lu ñu war a tuubee di wax ci nit ñi dañoo war a delluwaat ci seen borom tabaaraka wa taala mi nga xam ne moom moo leen bind loolu day wane ne la budda ne amul kenn koo xam ne mucc nga ci mbir mi ñëpp dañoo war di dellu ci seen borom tabaraka wa taala même ki nga xam ne ne dafa nekk koo xam ne ne jàpp na ne fi mu ne bu demee ci suñu borom tabaraka wa taala bu tuubee suñu borom di ko baal loolu existé wul loolu existé wul seytaane bokk na ci li nga xam ne moom lay yàqalee wala moom lay eh, waxi wala moom lay dee nit mooy di ko wax ne ne continuer ci sa bàkkaar bi parce que yow ak lu mënti xew rek yàlla du la baal te loolu du dëgg ndax suñu borom tabaaraka wa moo njëkk dàq lool ci suratu zumar di wax ne xul yaa ibaadi alladina asrafu ala anfusihim mu ne waxal sama jaam yi nga xam ne ne ey eh sama jaam yi nga xam ne ne da ngeen ëppal ci seen bopp da ngeen ëppal ci seen bopp cest à ne tox ngeen sàcc ngeen fen ngeen rey ngeen nit wala lu mu mën ci doon def ngeen façon bàkkaar bu ne boo xam ne ne euh, jàpp nga ne fi ne yàlla désespéré nga ci mu mu jéggal la yàlla nag di la tontu ne laa tax taxnatu min rahmatillah bu leen découragé bu leen ñàkk yaakaar ci yëru yërmande suñu borom tabaraka wa taala lan moo tax ndaxte inna allah naka buur yàlla yaxfiru day jéggal zunuba jamian mboolem bàkkaar yi suñu borom tabaraka wa taala da koy jéggal innahu huwa ghafuru rahim ndax suñu borom tabaaraka taala moom mooy ki nga xam ne ne aji jéggalaat kon la naka noonu tamit rahim la ki ku bari yërmande la ci ci ay jaamam kon képp koo xam ne ne da nekk ci yenn yi ba jàpp ne euh, yàlla du la jéggal say bàkkaar boo déggee suñu wax bi ak ay alquran bi xamal ne suñu borom tabaaraka taala mu ngi lay xaar mu ngi xaar lu dul sa sa njéggal te loolu lu koy wane mooy xadis bi nga xam ne ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne te mooy xadis bi nga xam ne jëlee nañ ko ci anas ibnu malik radiallahu anhu anhuma euh, mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne allahu afrahu bi tawbati abdihi min ahadikum mu ne suñu boroom tabaraka wa taala dafay bëgg dafay kontaan ci tuubu jaamam comme yi ñi bu fekkee da ngeen am benn giléem wala benn mbir boo xam ne ne comme benn giléem boo xam ne ne daf leen réeroon ngeen jékki-jékki rek gis ko boo leen ko gisee euh, contentement bi ngeen di kontaan maanaam par exemple am sa benn giléem sa giléem màmb wala comme fas fas bi jékki-jékki rek réer nga wër ko fu ne gisoo ko dellu nga jékki-jékki tourné gis fas bi di daw di delluwaat ci yow kontaan bi ngay kontaan suñu borom tabaaraka wa taala moo gën a kontaan ci jaamam kooku loolu li mu kontaanee ci ci fasam boobu wala gileem boobu ñoo xam ne dafa delluwaat ci moom kon loolu li ñu ci jàngee moom mooy suñu borom tabaaraka wa taala dafa bëgg nit ki di di tuub di delluwaat ci moom loolu mooy li nga xam ne ne day gërëmloo suñu borom tabaaraka wa taala ak beneen xadis bi nga xam ne ne euh, imaam muslim da ko riwaaye ne ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne am na koo xam ne ne maanaam mooy ki nga xam ne ne dafa nekk ci désert bi bu mu nekkee ci désert bi mu def ci ci ci giléem bi nga xam moom lay war mu def ci mboolem provision am waaye mu jékki-jékki rek nelaw jàpp ko mu tëdd di nelaw ba mu nelawee ba jékki-jékki rek yeew mu gis ne giléemam bi rëcc na te provision bi yëpp ca la neewoon te mu ci désert bi donc nga gis ko muy nekk di wër euh, giléem bi mu koy wër di ko wër di ko wër ba sonn ba xam na ne mënatu koo gis daal di tëdd ne xaar ma xaar dee nga xam ne dem na ba découragé ne dootul gisati giléem te xel xalaatul muy dem naan day continuer voyage ak tànku neen parce que ci désert bi la ne mu daal di tëdd ne xaar ma sama dee nas tuug rek mu jékki-jékki gis giléem bi ñëw tiim ko nee mu daal di tëb ba mu tëbee mu am tartaru contentement ba nga xam ne ne dafa juum ci li mu waxee maanaam dafa wax ne allahuma anta abdi waa ana rabbuka dafa kontaan ba ne yàlla yow de yaay sama jaam man maay sa man maay sa borom nga xam ne contraire bi la bëggoon wax waaye foofu dafa juum daal di wax euh, euh, daal di wax li nga xam ne ne normalement ku ko wax da ngay génn ci lislaam mais na fekk ko mu kontaan contentement bi ëpp moo tax contrôlé wul lu mu wax ba wax loolu léegi yoonu sansam lu mu fa bëgg jàngale moom mooy kooku noonu na fekk ko mu kontaan ci mbir boobu ba sax mu juum ci li mu waxee yàlla muy gën a kontaan sax kooku ci jaamam bi nga xam ne dafa tuub delluwaat ci moom kon képp koo xam ne ne jullit nga képp koo xam ne ne nit nga rek suñu borom tabaaraka wa taala mu ngi lay xaar di xaar sa di xaar sa tuub di xaar sa delluwaat ci ci moom kon loolu lu jar a bàyyi xel la ci ci ci wàllum tuub te yaakaar naa baax na ci wàllum introduction deuxième point bi nag bi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee tamit ci wàllum tuub moom mooy ngëneelu tuub li ñu doon waxtaanee yépp loolu day wane ngëneelu tuub waaye naka noonu tamit tuub dafa nekk loo xam ne ne jaamu yàlla la nit ki saa yu koy def mu ngi mu ngi jaamu yàlla mu ngi delluwaat suñu borom tabaraka wa taala naka noonu tamit mu ngi jëfe li nga xam ne mooy ndigalu suñu borom tabaraka wa wa taala naka noonu tamit tuub day tax nit ki am wërsëg comme ni mu ñëwee ci suratul Nuux maanaam su wërsëg wërsëg day gën a day gën a bëri naka noonu tamit da ngay gën a mucc ci nga xam ne ne mooy futuun nii may yi nga xam ne fitna yi nga xam ne ne mooy dal nit ñi ci seen pas-pas suñu borom tabaaraka wa taala day def mu mucc ci naka noonu tamit yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne texe ñeel na képp koo xam ne ne dem nga àllaaxira fekk sa euh, say téere maanaam say suxuf maanaam say téere say téere jëf fees dell ak ay istixfaar maam fees dell ak di tuub di delluwaat su suñu borom tabaraka di ko sàkkoo njéggalu kooku texe texe ñeel na ko kon loolu day wane ne nit ki dafa war bu mu wax rek ne man defuma dara kon waruma tuub déedéet parce que suñu borom tabaraka wa taala rek moo xam nit ki à cent pour cent ndax fi mu nekk mu ngi ci ay bàkkaar wala déet te même sax bu fekkee jàpp na ne deful benn bàkkaar rien que moom xamul te yàlla moo xam war na tax muy dellu ci suñu borom tabaaraka wa taala ndax jëmmi xalaat ne moom amul bàkkaar loolu ci boppam rek bokk na ci nga xam ne moom mooy bàkkaar yu ndaw yi donc loolu lu jar bàyyi xel la kenn découragé ci suñu borom tabaaraka wa taala jàpp na yàlla du la jéggal yàlla ñëpp lay jéggal te tuub ngëneel yu rëy a rëy ñoo ci nekk boo xoolee euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy dund tasawuf seeni euh, seeni azkar mooy seeni wérd seen awraat yu demee noonu seen wérd yi nga yor fekk rek di nga ci gis mu am istixfar di nga ci fekk mu am astaxfirullah wala euh, beneen sixa daal dina ci am ci sixa yooyu nag bëri na astaxfirullah ci la bokk astaxfirullah allazi astaxfirullah allazi laa ilaha illa huwal xayyul xayyum boobu tamit bokk na ci comme yonent bi aleyhi salaatu salaam ni ko ni ko jàngalee am na tamit sayidi sayidil istixfar istixfar am na bu ñuy wooye sayidil istixfar allahuma anta rabbi lay tam daa lay tàmbale allahuma anta rabbi laa ilaha illa anta xalaxtani wa ana abduka wa ana ahdika wa ahdika ila axiri donc loolu tam ci seydi istixfaar la bokk te boobu yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne képp koo xam ne wax nga ko benn yoon ci suba si mu nga am ci kuulute ci li nga xam ne ne moom nañ ci diggee ne di ko am bu boobaa boo génnee ci bëccëg bi dangay ngay dugg àjjana directement naka noonu tamit bu fekkee nga koo def ci guddi gi nga ànd ci kóolute ne li nga xam ne moom lañ ci diggee di nga ko di dëgg la de di nga ci am boo deewee ci guddi bi tamit da ngay dugg directement àjjana te loolu xadis la boo xam ne ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko wax ci saydil istixfaar bu fekkee nag ñi nga xam ne moom mooy troisième point bi moom mooy lu aju ci charte tuub bi lu am solo la charte tuub dañ koy xaajale xaajalikoo ci deux parties première bi moom mooy tuub boo xam ne nit ki da koy tuub par rapport ak suñu borom tabaraka wa taala deuxième point bi mooy tuub bi nga xam ne ne nit ki da koy tuub par rapport ak moroomu mbindeefam ñu njëkkee ci premier point bi mooy nit ki tuub bu mu war a tuub digganteem ak boroomam dafa war a xam ne ne tuub farata la nekkul loo xam ne ne euh, def naa bàkkaar bi mun naa rab rab mun naa reporter tuub bi maanaam mun naa xaar ba pare comme ñenn yi ñu koy waxee naa xaar ba pare j'ai le temps instant yi su ma ko tuubee léegi tam dama ciy delluwaat naa xaar ba xaar ba après doogu tuub déedéet loolu ay jax-jax jax la ci seytaane yu jóge ci seytaane donc tuub obligation la ci mbooleem jullit yi ñëpp ak tamit surtout boo defee bàkkaar bi ci boppam ci saa si nga war a tuub maanaam loolu waajib la ci waajibaat yi la bokk maanaam ci euh, yi nga xam ne moom mooy obligatoire yi nga xam ne ne nit ki bu defee bàkkaar ci saa si da ko war a tuub waaye warul reporter tuub bi maanaam warul xaar di xaarandi tuub bi ndax diggante bi dee da cee dee da cee xaj waaye tamit naka noonu tamit bokk na ci charte tuub bi ñett nañ charte tuub yi nga xam ne ne moom mooy diggante nit ki ak boroomam ñett la premier bi moom mooy mu rëccu bàkkaar bi nit ki mënul def bàkkaar ba pare di ci am fierté waru ko def di ci am fierté wala di ci wane ne comme parfois ngeen ñi ñu koy waxee di wax ne ne njëkkeewu moo ko fi te duma ko fi mujje loolu képp koo xam ne ne loolu da nga koy doxale wala da koy wax yàlla du la baal bàkkaar boobu yàlla du la baal bàkkaar boobu parce que da ngay firtirlu ci suñu borom tabaraka wa taala naka doon tamit yi nga xam ne ne tamit mooy tax ba nit ki duñ ko baal bàkkaaram bokk na ci mooy balaa muy def bàkkaar bi comme ngeen ni ñu koy defee ne na ma yàlla baal de waaye nangam loolu yàlla du la ko baal na yàlla baal waaye nangam doono loolu yàlla du la ko baal loolu ak tayeef la waaye nekkul loo xam ne ne ak njuumte la naka noonu tamit li ngi tax nit ki duñ ko nangul tuubam moom mooy bu fekkee waxtoom waxtu faatoom jot na jamonoy sukkuraat bu xasee ba jot dañuy daal di tëj buntu tuuba kon li nga xam ne ne ñett yooyu noonu bokk na ci yi nga xam ne ne nit ku tuubam duñ ko duñ ko ko nangul kon premier moom mooy day rëccu foofu nit ki rëccu bàkkaar bi moo tax yonent alayhi salaatu salaam mu wax ci benn xadis ne rëccu rek ci boppam jëm mi tuub la maanaam rien que rëccu rek loolu delluwaat la ci suñu borom tabaaraka wa wa taala donc nit ki mun na sax bu fekkee rëccu na rëccu bu sincère dëgg dëgg dëgg na na ko wóor na ne suñu borom tabaaraka wa taala jéggal na ko bàkkaar boobu deuxième bi deuxième charte bi mooy mu bañ a dell mu bàyyi bàkkaar bi nit ki foofu mu dogu ci bàyyi bàkkaar bi foofu mu bàyyi bàkkaar bi maanaam munoo nekk ci bàkkaar bi après nan na ma yàlla baal na comme ni nga ko waxee na ma yàlla baal waaye nangam na ma yàlla baal waaye nangam loolu mun ne donc da ngay bàyyi bàkkaar bi donc ñu doog la mën a nangul sa sa sa tuub troisième charte bi tax tamit ñuy nangu ñuy nangu tuub mooy nag mooy dogu ne dootoo delluwaat ci ci bàkkaar bi ba faw dellu ne dootuma defati bàkkaar bi dogu ne dootuma defati bàkkaar bi ba ba faw loolu mooy troisième charte bi kon ñetti charte yi ñu wax ñu ñëwaat ci premier bi moom mooy da rëccu bàkkaar bi deuxième bi mooy dangay bàyyi bàkkaar bi troisième bi mooy da ngay dogu ne dootoo defati bàkkaar bi ñett yooyu mooy charte yi nga xam ne rek bu dajaloo ci nit nangul nañ ko tuuba saa yu defee bàkkaar bi comme ni ñu wax naan bu fekkee mat na trois fois dañ koy bind déedéet ak nu mu mënti doon ak nombre fois bu mu bu mu doon bu fekkee charte yi ñoo ngi koy respecté rek moo ngi koy respecté rek yàlla tabaraka wa taala loolu da koy jéggal n'est-ce loolu da koy jéggal bokkul nag ak ki nga xam ne moom day day def lu maanaam day day tuub tuublu kooku la yàlla dul baal koo xam ne ne sincèreul ci tuubam kooku moom laa budde ne yàlla du ko baal ndax sincérité nekkul ci xol bi ba muy tuub loolu moom mooy tuub ci diggante nit ki ak boroomam mooy premier point bi deuxième point bi mooy nit ki tuub bu mu war a tuub diggante moom ak moroomu nitam c'est pas parce que nit ki danga koo ameel cinq millions nga dem ne yàlla baal ma wala tuub naa ci yàlla kon cinq millions yooyu mun naa ko lewal sama bopp déedéet naka noonu tamit même bu fekkee yéefar la même bu fekkee yéefar la maanaam du jullit boo ko ameelee xaalisam c'est pas parce que jullit nga tuub naa ci yàlla jéggalu naa su ma sañoon fay ko xaalisam nangam nangam rek daal da lay wàcc déedéet ndaxte loolu nekkul nekkatul diggante yow ak sa boroom waaye nag diggante yow la ak moroom sa sa sa moroomu nit walla mbindéef donc dafa am ay charte yi nga xam ne ne mooy tax nit ki ak yooyu ko koy dal diggante moom ak ñeneen yi dafa am charte yoo xam ne ne bu ko respecté wul duñ ko baal bàkkaar boobu te bokk na ci ci yooyu yooyu bu fekkee yooyu ñeent la au lieu de au lieu mooy trois yi njëkkoon wax yooyu ngay jël mooy ne da ngay da rëccu déjà bàkkaar bi par exemple mën na nekk yu bëri par exemple yow da ngaa tooñ nit ki ci tuumaal ko ci fenal ko ci waxal ko lu bon ci et cetera ci lekk alalam wala sàcc alalam et cetera loolu dafa am façon tuub benn bu ci nekk boo xam ne ni moom nga ko war a tuubee déjà foo nga respecté trois premières yi nga xam ne moom lañ njëkkoon cité ci tuub sa diggante ak sa borom moom mooy faw nga rëccu ko naka noonu tamit faw nga bàyyi ko noo nekk di continuer di yàq deru nit ki wala di continuer di ngay def naan naan mënuma ci dara déedéet donc faw nga bàyyi ko faw nga dogu ne dootoo ko defati munoo ne damay tuub léegi mais après su ma féexee dama nekk rek situation boo xam ne ne damay tuub nii mais après dinaa dinaa ko defaat leneen wala dinaa fayu non non dogu ne dootoo ko dootoo ko defati. quatrième bi nag moom mooy da ngay réparer li nga xam ne moom nga toor bi nga bi nga ko teg da nga koy réparer ça dépend nag kon ci toor bi nal na tool bu fekkee xaalis nga ko ameel da nga ko yàqal xaalis par exemple nga yàqal ko otom wala nga yàqal ko portable am wala nga yàqal ko rek alalam bu boobaa faw nga fay ko alalam bu fekkee baalu la ko bu fekkee moom nee na daal d'accord jéggal naa la mais nag foofu nga fay ma sama sama sama sama portable bi wala sama nàngam bi bu boobaa foofu nga fay ko te même boo génnee àdduna sax bor boobu dalay topp naka noonu tamit bu fekkee dangaa yàq deram par exemple na jël exemple par exemple da koo jëw bu fekkee da koo jëw bu boobaa foofu nga delluwaat fi nga xam ne ne foofu nga ko jëwee nga wax ak ne man de li ma doon wax ci diw yépp nekkul woon noonu wala loolu moom may bi waaye tamit da ngay dem ba ci moom ne ko mankat def naa la nangam maa la ciy jéggal maa lay ñaan nga jéggal ma ci bu boobaa bu la bu la jéggalee maam boobu bu la jéggalee rek xayrul àq bi dal na lay wàcc par exemple bu fekkee jëw la bu fekkee nag comme par exemple da ngaa yàq deram tamit. foo nga dem tamit ba fi nga ko yàqee nga dindee ko fa nga defaraat ko fa wax na ne kam man de li ma doon wax ci diw yëpp nekkul woon dëgg yàq deram rek laa ci jublu woon waaye li ma doon wax yëpp xaw ma ci dara dara leerul li may xam ci moom moom mooy ne ku baax la ku nàngam moom la bu fekkee sax waxoo ne ku baax la ku nàngam la waaye li nga xam ne moom nga moom nga yàq daal li nga ko sosal moom foo nga dellu ba fi nga xam ne moom nga ko defee nga réparé ko foofu naka noonu tamit bu fekkee baalu ko am loolu bu fekkee mooy may euh, baal na la ko foo nga réparer tamit faute bi bu fekkee nag baalu la ko nag tamit loolu àq boobu day continuer di la topp n'est-ce donte kee moom li ko lislaam wax ak suñu borom tabaaraka wa taala wax moom mooy mu jéggale donc loolu lu jar a bàyyi xel la ne charte yi nga xam ne ne moom moo régir diggante nit ki ak boroomam ci wàllum tuub bokkul ak charte yi nga xam ne ne moom moo régir diggante nit ak nit ci wàllum tuub donc bu fekkee nit ak nit moo gën a yaatu moo gën a compliqué moo gën a complexe ndax suñu borom tabaraka wa taala ci boppam moo la wax ne wala tazaalamu bu leen tooñante seen biir comme mu ñëwee ci xadisu xutsi bi yéen sama jaam dama xaraamal ci sama bopp tooñ kon bu leen tooñan bu leen tooñante seen seen biir donc loolu moo tax nga gis charte yi nga xam ne moom mooy charte euh, yu aju ci nit ak moroomam chart yooyu diis ci wàllum tuub waaye tamit boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañuy wax ne ne tuub ci boppam dafa nekk loo xam ne ne comme li ñu koy tëjee mooy ne tuub dafa nekk loo xam ne ne ci ñëpp la war comme ni ñu ko waxee ñëpp a war a tuub delluwaat ci suñu borom tabaraka wa taala moytu bàkkaar yi fexe ba nga xam ne ne même boo tooñee wala même bu fekkee da ngaa def yenn bàkkaar yi da nga delluwaat ci suñu borom tabaraka wa naka noonu tamit nga ngay jëf ay jëf yu bëri yoo xam ne ne mooy kafaara ñi nga xam ne ne moom mooy jëf yi nga xam ne ñoo jiitu woon lu ci mel ne par exemple euh, bu fekkee na nga causé ay yenn toor yi da nga fexe ba nga xam ne boo tuubee ci suñu borom tabaraka wa taala ba pare bokk na ci yi nga jëf yi nga xam ne ne mun na effacer euh, ndax loolu dañ la jéggal mais ba léegi effacé guñ ko ndaxte dafa am ñetti parti dafa am loo xam ne ne yàlla danaa la jéggal naa la ko mais bàkkaar bi c'est noté mais jéggal na la ko am beneen partie boo xam ne rek moom moom mooy ne dañ koy effacer carrément wala dañ koy suturaal dañ koy nëbb nga xam ne ne keroog àllaaxira sax kenn du ko gis mais ba léegi mu ngi fi mu am beneen boo xam ne ne moom da koy dindi carrément mel na comme si mosoo koo def donc loolu lu jar a bàyyi xel la te loolu loo koy may moom mooy lan surtout muur bi mooy fexeel ba nga xam ne ne boo defee yenn jombe yi ba tuub ci suñu borom tabaaraka wa taala fexe ba jëf ay jëf yu baax yu bëri yoo xam ne rek day contrebalancer ci ci ci ci par ak jëf yu baaxul yi lu koy contre contrebalancer bëri na lu ci mel ne woor lu ci mel ne ndax woor tamit noonu la noonu la noonu la yéemee ci wàllum lu muy effacer bàkkaar naka noonu tamit sarax sarax tamit comme yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu mu waxee ne sarax euh, ni ndox di fayee safara noonu la sarax di fayee di effacer bàkkaar naka noonu tamit julli maam di def ay naafila nawaafil yu bëri naka noonu tamit omra naka noonu tamit euh, li nga xam ne mooy ajjuma ba àjjuma yooyu yëpp dafa nekk yoo xam ne ne dañuy effacer ay bàkkaar woor bi sum arafa naka noonu tamit euh, euh, dem omra diggante ñaari umra ak yu demee noonu dem umra ci boppam dem aj màkka la xam ne ne da da ngay beesaan et cetera donc am na ay jëf yu bëri yoo xam ne ne yooyu yëpp dañuy nekk ay jëf yoo xam ne ne dañ lay effacer say bàkkaar yi nga xam ne ne moom mooy say rëcc-rëcc yi nga xam ne moom moo moom mooy yi jiitu donc loolu moo nekkoon li nga xam ne ne moom lañ bëggoon waxtaanee ci lu aju ci tuub di ñaan suñu borom tabaaraka wa laa defal ñu kàddu yu gën a mëdd jéggalu ci rëcc-rëcc yi